raay bi nga xam ne moom la sunu nawle di sunu xarit Boucher Ketchup jële fee ci États-Unis muy ceinture bi ngeen gis tey ñu ko doon feete fii di ko sargal ci teewaayu Pape juuf ak Bébé baas ak ay xaritam euh, Ketchup woote ñu wuy si nan la mel. waa Fadel woote suñu woote ñu wuy si la dafa neex boobu tey maa ngi lekk lekk yee bari ndawal li bari na xar yi ginaar yi. keeg yi fruits yi jus yi lépp ah kenn waralu ko lu dul sama jëmm ju xeebu ji man nag taalibe Sëñ Tuubaa laa chaque jour suma tollu ci lu ma ne Sëñ Tuubaa jiital moo tax sama gàcce du gaaw waaw maa ngi santaat Sëñ tubaa bu baax di ko santaat bu baax a baax a baax a baax di ñaanal waa kër Sëñ Tuubaa yëpp ñëpp am jàmm di nuyu suñu kilifa sëriñ Muntaxa Basiru yàlla yàggal ko fi di nuyu sama mag sama xarit Papa Diouf ñoo ko bàyyi mi nga xam ne tey lii yëpp moom la dama am ndam mu ne ma loo bëgg ma ne ko yow dara yow ni nga def nii rek sa bégal ma kontaan naa ci yuuxu jooy bàyyi sa lépp ngir man ma ñëw ba fii mu woo ma ne ma dama lay diine royal Pullman la ma wax nga invité say nit Pullman ma ne ko Pape du ma dem Pullman da ngaa am kër gu bees tàq àdduna bi yëpp di ko gis man damay feer toog fa def fa sama feet su ma amoon kër gu mel noonu foofu laa koy defee dew ma Pullman mu ne ma Ketchup déedéet nañ dem Pullman ma ne ko mukk sa kër laa koy defee. dootul lu ñuy waxat sa diggante ak Papa ndax yaakaar naa lii rek tey firnde na ko sànc kër moom mi Pape defu fi émission nga njëkk fee def émission toujours yaa ngi jàngale nit bu ñu ànd ak nitam daa war a sincère ci moom te dëggu Pape nit dafa war a sincère te dëggu Médoune kii euh, Fadel Fadel Sénégal dafa yàqu léegi Sénégal léegi xamuñu dëgg dëggantu lañ xam te loolu baaxul nit boo ànd ak moom dangay ngay sincère da ngay fidèle parce que tey Fadel am na loo xam ne bëggoo ko la ko def yow nga ne man sa xarit laa nga ne man sa nit laa nga ne man sa lépp laa léegi ngay chaque jour ma lay gis. ñuy waxat ñuy waxtaan lépp ci àdduna ñu bokk lépp lu ñuy def bokk fépp fu ñuy nekk chaque jour man ma lay gis yow ngay nekk koo xam ne ñoo bokk même domaine bu ñu ne te bis mën na ñëw mën nañ jàkkaarloo loolu sa xool du neex nga wax ko nga ñàkk koo wax sa xol du neex. day tax nit ñi ragal la day tax nit ñi ragal la man tey kilifa bu ne laay àndal kilifa bu ne laay waxal kilifa bu ne laay nekkal xam nga lu ma may loolu dëggu bi ma dëggu ci nit ñi. ku ma àndal yow la ñuy dégg ci ku ma ne ci yow laay yem ay ngaraleeke njaaxaanaay xaw ma loolu. fair play mooy lan luy fair play nan ngay fair play dem ànd ak koo xam ni chaque jour ñu ngi naan ñu ngi koy tudd tudd keneen ki léegi nga bëgg a ñëw naan da ngay fair luy fair play yéen nii feeg lay nduru te man je suis pas feek Pape Diouf mooy sama lépp à vie Balla Gaye 2 mooy sama mbër à vie ku ma ci dajeel nag ci yeneen ñi. ñeneen ñi bokk ak ñoom domaine dama lay jox sa cër màggal la siyaar la bégee la jox la sa wàccuwaay kontaan ci yow sukk sax mën naa koo def sujjóot la waaye du ma la yamaleeg sama produit. li ma xamee Balla Gaye ni nga ko bëggee ni la la bëggee bi nga amee ndam li tey réaction ci yow. non moom moom dafa ma mere daf ma woo mere ma di yuuxu xam nga lu tax mu mer dafa xam qualité yi nekk ci man ba pare nee na dama koy sàgganee. nee na dafa bëgg ma dem entraîné ji nekkaat ci. même wax bi. la ñeneen ñu wax ñoo xam ne bokkuñu ak Balla Gaye qualité bëre bi de ci yow néew na nga gis ko ci ku mel ni ñoom est-ce que jotul dëgg nga jël yi nga xam ne moom mooy sportam privilégié ko ndax am nga ci ay talent yoo xam ne boo ko privilégié lu ne mën nga ci am. waaw am naa ci ay talent dinaa ko privilégié benn am naa ci ay talent am naa ci ay technique am naa ci coffre boo xam ne am naa ci. mbébét ak jàmbaarte ak dëgg ak fierté maanaam man li ma boole dafa bari su ma yëngatoo rek yàlla daf may jàppale di gërëm nag moo gën mi nga xam ne moom may sens bi parce que daroon naa dund ba dee du ma xam nu MMA mel du ma xam licence u MMA nan lay mel parce que tubaab du ma gis man ak sama physique gis ma nii nii nii rek jox ma MMA du ko def parce que MMA bakkan xaj na ci te assurance bi ci ñoom lay mujj. lu ñuy xaar ci prochain combat wu Ketchup ci ban façon parce que amatoo droit def erreur ndax kaay xas na nga marqué nga sa empreinte ci MMA pare amatoo droit arrière lu ñuy xaar ci pour sa maa ngi déglu moo géet parce que day fay moo géet daf may fay xaalis bu bëree bëri bëri bëri bëri balaa maa bousee jëlal ma hôtel fay ma xaalis jëlal ma lépp ma bëree ma bëre mu fay ma sama xaalis maa ngi koy déglu ci maak Zos xam nga Zos tapet la Lamine bay rëy Zos laa soxla soxlawu ma kenn ku dul Zos. dafa ko moo gee déggee mu taxaw. moo dégg na ko ba wax daf may fay. nga lay xaar ci yow sa prochain combat xam nga ne amoo droit def erreur parce que da ngaa xas yéene marque sa empreinte ca kanam rek nga war a jëm sa prochain combat lu ñuy xaar ci yow surtout sa diggante waaw loolu nag damay nuyu moo géet mi nga xam ne moo ma tëgg moo ma may sens bi parce que naroon naa dund ba dee du ma xam nu MMA di mel parce que licence su MMA c'est pas n'importe qui ku koy am seer na ba pare loo xam ne la sa live xaj na ci moo tax balaa nga koy am c'est des millions mu jël xaalis boobu nag yéene ma ko may ma sens ma am licence su MMA professionnel nga xam ne fépp ci àdduna bi mën naa fa dem représenter samay sama réew mu dugal ma ci fay ma xaalis bu bari nag xaalis bu baree bari la ma fay moo génn bu bari ma yor xaalis bi dugal sama poos mu jëndal ma ay billet jëlal ma hôtel lépp ba ma dem ba foofu di balaa may bëree jox na ma sama reliquat maak samay moroom kon dañu koy gërëm di ko sant di ko ñaanal naa la lafal ko cat man du ma fëkk jëf ku ma defal lu baax ma wax sa diggante ak Zos. moom nga bëgg te nit ñi nee na moo gën mënu koo fay. loolu gëw ko. loolu loolu gëw ko. loolu gëwuma ko moo gën mun na koo fay ba may ko Zoss dafa ragal di daw di ruux Zoss li mu fayeeku combat bi passé man sax li ma ko ëpp na ko mille fois. ko ay milliards la liñ ma Zoss liñ ko fay Zoss combat bi passé dañ koo fay dara man ma mun koo fay ba may ko na ñëw ñu bëre bu fekkee am na fit bi MMA bu ko soxlaa ñu dem amerique bu ko bëggee biir Sénégal fii ma wane sama bopp. baax ba qualité bëre yi nekk ci yow sa combat bi passé dafa lu bari ci yow. moo tax nag ñu bari daw fu mu nekk ni ñu baree ngi ruux di wut ay yoon ñii di jaar ci ruq yi ñii di jaar ci mbër bu ci dof-dof lu ba laalaat ma. yegg kun fa yegg. ay fan ay fan ma yegg. kuñ fa yegg mu bàyyi. ay fan la laa ilaaha illallaah. mais maa ngi gërëm bébé baas bu baax a baax a baax. nit ku baax a baax a baax li yëpp moom la. bébé baas aw ma fayam. sama xarit la sama jigéen la sama chéri la sama conseil la yàlla na yàlla guddal fanam ba Mouhamed am bii di ko yóbbu Màkka ah, ak euh, sama sama doom ja fàtte naa ko borom Europe <laughs> ma xalaat daf maa yàpp moo tax mais maa ngi siyaar ñëpp di di di bëggee ñëpp di kontaan. jëlee ma sànce sànce këcc ba parce que gërëm nag Birane nduur bu baax Omar Sow Ndoura Balde Ismaïla Baas Hmm. Aziz Ala Ndiaye Ilimane Lam Serigne Balla Gaye 2 Baye ah ñëpp maa ngi leen di gërëm Doura Balde maa ngi koy gërëm bu baax a baax a baax di ko nuyu. mun ci ñëwaat. madame kenn du moom sëyal na ma muñal na ma li gën a garaaw mooy jigéen bu set dafa jafe ci réew mi set wecc toog sa kër. sa jëkkër bu génnee nga muñ dem di ko ñaanal yow daal ñaan rek sa jëkkër bu dugg maanaam man su ma génnee sama jabar day julli di ñaan ba ni may ñëwee su ma tukkee sama jabar day julli di ñaan ba ni may ñëwee moo tax man yàlla duma seetaan ndax yàlla dafa xam ni xale bii ma takk dafa set wecc toog fi mu war a toog yam fi mu war a yam te yàlla su ma bàyyee noonu seetaan ma ma torox sama jabar dina am problème te moom dina ci sa bu ma waroon def yenn yi sax dina ci sama soxla non fa la Fadel yaa ma ak ci la ma yow ci li nga xam da nga koy def ci ay malaat te bëggoo ko wax yàlla na sa jàmm. dëgg la yàlla baax na. li may wax rek ku yabu rek la jàmm. ndax sa xol mars le 19 mars grand théâtre Pape Diouf laa fa yóbbu ak BK Events. BK Events nag mooy Boucher Ketchup Events am na Boucher Ketchup restaurant am na Boucher Ketchup dibiterie na ko ñëpp waajal dinaa jël plus de 1000 emplois ci sama structure. kon président de la république loolu maa la ko dimbalee ci réew mi dinaa jël mille emplois yoo xam ni yéen laa ko dimbalee yéen état pour wax ji wàññeeku ak ñi nga xam dañ ne dëkk bi daa metti di dem naa wuti sama xaalis bitim réew ñëw samp fii ay projet pour dimbali sénégalais yi ñi nga xam ni amuñu fu ñu jëlee liggéey mille emplois ñii dinañ liggéey ci events bi ñii liggéey ci dibiteri bi ñii liggéey ci restaurant bi. yàlla na ci yàlla def jàmm.